dama bokkoon ci collectif des candidats yi defe naa de maa ko sant ba dem conseil constitutionnel ñu foqati sama parrainage jaay ma doole tey maa gën taxaw ci Sénégal pour que ñu am élection le 25 février ndax li may bañ mooy ñu taafan dooma man pour violer la constitution li may bañ mooy ñu taaxam doomamaat pour que Macky Sall ba xamuñu kañ ku fi dugg ci report élection na nga xam ne ubbi nga la boîte de Pandore ku fi reporté élection ñu ngi ci vide constitutionnel parce que président Macky Sall le 2 avril 2024 ci lay bàyyi ci nguur yi loolu la constitution wax kon may wax sama naataango yi nga xam ne jàpp nañ ne ils ont été spoliés loolu mu ngi sunu ginnaaw nanu fàttaliku xale yi nga xam ne dañu génn di manifester seeni droit yu boobu la ñooñu ñooñu gën a metti la situation defe yi nga xam ne dañu foqati seen droit à participer à l'élection Ousmane boobu ko fàttaliku leen ne ñaari yoon ay juge jox nañ ko décision pour ko sunu candidat yi ñu ba Diomaye Faye ma nga ca kaso ba kon fii ay violation droit rek ñoo fi li ko mën a arrêté li ko mën a arrêté mooy ñu dem élection le 25 février ñu débarrasser une fois pour de ce régime qui est liberticide régression démocratique mës na am Sénégal depuis ces deux ou trois dernières la communauté internationale que bari ngeen la communauté internationale. vous avez une obligation. Une obligation d'intervenir parce que nous partageons le droit international tous ensemble. Le droit de participer dans les conventions que nous avons signées en tant que Sénégal. Vous avez déjà déployé vos observateurs parce que vous avez considéré qu'il faut tenir l'élection à date échue. Mais il faut que vous alliez parler au président Macky dans la nuit. Hein. Il ne sera pas accepté demain qu'ils nous disent qu'il va reporter l'élection. Ce ne sera pas accepté par les Sénégalais. Nous les appelons parce que ñu nit aussi ay leaders lañu lu ñu mën danañ ko def ñun ñii seen i yaay seen i bàjjen seen tous les jeunes nous tous les jeunes à manifester à exercer leur droit constitutionnel si on nous dit l'élection de descendre dans tout report à l'élection présidentielle kooku ñun ñoo koy wax fii ndax nag li ñu mooy ba mu bëggee troisième mandat dañu génn taxaw mu dellu ginnaaw malheureusement xëy na loolu la xam constitution bi dañ ñu may ñu manifester bu ñu fi déggee violation constitution suba ñu ne ñu dañu ne dañuy reporter élection bi dañu war a génn exercer nos droits constitutionnels et manifester parce que mënuñu koo nangu tey mënuñu koo nangu ëllëg. mooy la situation actuelle ñu ngi liir sànq ne am na demandé un pour une proposition de loi pour le report des élections mais loolu fan lañ ko mës a fan lañu mës a benn loi boo xam ne mooy jéggi constitution fan la mës a am ci Sénégal ban droit la ñuy dund fii ci Sénégal ban loolu nag ñun ñoo ñun suñu responsabilité la ñun en tant que citoyen en tant que sénégalais en tout cas nous en tant qu'opposition nous prendrons nos responsabilités et nous appellerons les sénégalais à prendre leurs responsabilités avec nous Sénégal ñun ñoo doon la vitrine on était la vitrine de la démocratie en Afrique aujourd'hui on est la risée on n'a jamais vu au Sénégal une élection présidentielle reportée ça c'est le bilan de Macky Sall on n'a jamais vu à 48 heures, moins de 48 heures, nous nous sommes prêts pour aller à l'élection. Il sait très bien que son candidat sera battu dès le premier tour. Il le sait très bien. Mais c'est son problème. C'est lui qui l'a choisi. C'est lui qui a choisi un candidat incapable de gagner. Il le règle dans sa maison là Il ne transforme pas une crise politique interne à la PR en crise institutionnelle. Et c'est ça le problème. que la commission d'enquête enquête jusqu'à ce qu'elle trouve ce qu'elle veut trouver. C'est son droit. Mais l'élection doit se tenir le 25 février et nous irons en campagne dès après Et il faut appeler tous nos militants, tous nos responsables à se tenir prêts à aller en campagne électorale et pour battre dès le premier tour le candidat de Macky Sall Amadou Ba foofu la réew mi toll. yëf yi nag fulla la ak fayda bu fekkoon dañ doon yox yox yi te ba mu bëggee troisième mandat kon ba tey mooy candidat bi créer ay ay résultats ne maa ngi nanu taxawee woon contre le troisième mandat noonu la ñu a taxawee contre tout report de l' élection du 25 loolu nag c' est notre responsabilité dañuy jiitu waaye dañu bëgg suñu doom yi ne suñu wet bëgg suñu borom kër yi ne suñu wet bëgg mag ñi ku ci am kàttan ne ñëw ànd ak ñu ñu defaan suñu démocratie parce que loolu nag mooy suñu mënuñoo nekk ay démocrate xeex ba fii ay ati ati at moom ci wàllu boppam moom ñoo àndoon fii place de fii place de muy benn vendredi ma koy fàttaliku Abdou Mbow mu may dégg parce que ñoo àndoon man ak Macky Sall le candidat loolu Alioune mën na ko mën na ko seet am ab président africain bu ñëw ne dañoo bëgg négocier pour ñu dàq élection bi mu bañ ba tëdd ci suuf moom ci boppam moom Macky Sall maa ngi woon toog muy 48 heures avant l'élection euh, de 2012 waaw àddina di dox ba yegg si fii moins de 48 heures ñuy wax waxu report loolu kenn mënu ko xalaat fii ci réewu Sénégal loolu duñu ko nangu tey duñu ko nangu ëllëg kooku c'est notre responsabilité ñuy appeler encore une fois les Sénégalais des villes des campagnes ñu jóg taxaw bu ñu déggee report parce loolu violation de la constitution la te loolu waruñ ko nangu tey waruñ koo nangu ëllëg maa euh, euh, am kenn koo xam ni dama yaakaaroon ni nekk fii wante ñëw na ci diggante bi ma jox ko kàddu gi balaa may jox kàddu gi. dernier intervenant muy Amadou Ba donc pas Amadou Ba bële ah. <laughs> suñu Amadou Ba. voilà donc Cheikh moom dafay mu tudd la bokk balaa nga yëg. waaw kon ñu jox kàddu gi Cheikh. qui est aussi candidat. salaamaaleykum mbokk yi yaakaar naa li ma fi jot a dégg rek doyoon na pour yóbbaale suñu wax ñun ñëpp képp ku nekk ci sa kër toog di ñu seetaan. amoon yéene ak yaakaar ci réew mi bëgg réew mi di patriote gëm démocratie bi mu jaral la nga xeex ko tey war nga bàyyi xel lii ñuy wax fii parce que Macky Sall mënul jël wàllam jël wàllu keneen mënul jël wàllam jël wàllu askan bi dañu ko fal 2012 mu dig ñu ni dina def 5 ñëw trahir ñu def 7 ñu jël lu ñu neex ak lu ñu naqadi bëgg jàmm ci réew mi ak dal ñu muñ bàyyi ko mu demaat ñu fal ko 2019 mu war a def 5 ans bëggoon def troisième mandat ñu gàntal ko 5 ans yooyu Macky Sall na xam ni jeex na gas.